jërë ngeen jëf mbokku internet jàmbaar news mbokk yi mbégte la waat ak contentement ñu jàkkaarloo ak yéen yaakaar naa nag fi ñu jëlee woon Ouza ak fi ñu ko jëlaatee nii bokkul mais lépp liggéey bee ko waral waaye lépp li ñuy def rek suñu kent laay kàttan pour di leen bégal waaye pour di li nga xamante ni mbokk yi saa yu waxtaanee jox leen di ngeen am satisfaction totale foo leen mën a ne yéen ñi nga xamante ni ñuy suivre yaakaar naa nag première partie bi man ak Ouza waxtaan nañu si combat bu am solo bi nga xamante ni amoon na démb mu nekkoon ouverture bu am solo bi nga xamante ni Ibrahima Diop Kajoor production def na ko démb le premier août doxoon si diggante Mama Lamine ak Gora Sock foofu sa arène nationale ñu gis na combat bi macha allah nu mu déroulé Gora Sock mam Mama Lamine jël bu amul benn werante jóge nañ nag salle de musculation bi ñu ngi usa mu ni waaw man ko du mu la bàyyi dama lay toppaat ba ngàcce faal fekkaat la fa dëkkaat la sama micro waaye waxtaan ak yow si combat bi nga xamante ni jamono ji ñu toll nii mbokk yi àddina moom la ñuy xaar grand moom la ñuy waxtaanee. waa parcelle ñu ngi waxtaanee diggante Zos ak Adafas waaye waa Dakaru ñu ngi waxtaanee diggante Adafas ak ki nga xamante ni mooy Zos mbokk yi mun na nekk combat bu am solo waa jàmbaar production woo ñu fa seen quatrième édition ñu nuyu nag la PDG El Hadj Mansour di ko ñaanal bu baax baax encore une fois waaye di nuyu papam suñu maam Père Ba yàlla dafa ko jàmm ak bu jàmbaar yëpp mbokk yi tey ji dañuy waxtaanee ñaari qualité mbër yi waxtaanee ñaari avantage yu mbëri si bile combat le huit incha allahu rabbi waaye jibi xam nga ni Bambo la solution ndaanaan bi champion bi moom mi nga xamante ni mu wax si làmb lu rek aw ko takk téere lu baax li tey moo fi génn moom Bambo ñu koy nuyuwaat di ko kontaanee bu baax a baax Ousa en route vers le huit octobre incha allahu rabbi journée bu nar explosive combat yooyu ñu ngi si boole ay xale yu am tur xale yu am ginnaaw parce que boo nee Lat Dior nga ni papa bari bari boole ak bébé Modou Lo waaye nga ni jaasipal ak jamaa noir waaye Oli Gens ak Ous Garga waaye grand combat ba war a dox si diggante Zos a Fass maa ngi lay nuyu la bàyyi nga ñëw teg internet yi laataa ñu ñëw si combat bi Ousa. oui asalaamaaleykum Serigne maa ngi lay ziar bu baax gannaaw ba ma sant yàlla julli si bi gërëm sama ñaari waajur sant Serigne Touba bu wér sant suma Serigne sëñ Modou Makhtar Mbacké bu sëñ Abdoulahi Mbacké borom dir bi di siyaar sëriñ Moutala Soy bu di siyaar sëriñ Mouhamadou Abi Mbacké di leen ñaan ñu jàgg loolu te wér ci barki xasida yi di nuyu nag sëñ Moustapha bu Alaaji Bar bu sëñ Moustapha Jëng nekk ku baax foofu la ñuy dal daanaka màggal gi xayra yàlla na ko sëriñ bi defal tawféex di leen ñaan ñoom ñëpp ñu yàgg teew yàgg loolu te wér duñu ne waa nga saal ma topp la waaw mais nag nekk suba ba ngoon ci mm-hmm. wax dëgg yàlla man daf may defal teranga bi dama rus mm-hmm. wax dëgg yàlla nit nag su defalee loolu lu mu nekk rek si yëfam koy jàpp pour mu jëm ak jëm nit ku la parce que dafa doon papam père ba doon nu yaay mère Dramé vraiment dañ koy ñaanal lu mu mën déwén mu mën lu ko bokk si milliardaires ah. parce que Mansour su si moom lay moom nit ku am yar am teggin vraiment dañ koy ñaanal suñu borom defal ko cat bisam bii muy dugg la muy le huit diggante Jos le showman borom parcelle borom Fass borom Dakaru ah combat bu doy war la bi mun na gaaw mun naa yéex waaye li may wax chaque jour rek ku la ne ma xam la mu nekk boobu dimanche muy man muy keneen ku nekk ñoo ko mais waa jàmbaar mhm. ñoom tamit war nañ leen war nañ ñu xoolaat seen ay mbir de saa yu ñu présenté événement mhm. événement bi jur coow nag lu waral loolu mooy xol bu lab Mansour dafa nekk xale yi mais dafa nekk ku baax mën a social mhm. nekk jëriñ boo xamante ni macha allah keroog maa ngi dégg Batika di ko gërëm si ñaar rakk yi Batika tamit maa ngi koy char moom suma kilifa la suma lépp la batike lu muy dugg daf may wo waaw borom diine bi nee na diine bi ko jox waaw nee na Fatou du ñëwee ordre désordre la ñëwee waaw ñoo ngi ko ñaanal ko mag moom mooy nootu jàkk 19 nekk nit ku baax vraiment du nuyu Mansour du nuyu Père Ba du nuyu waa jàmbar mm. entraîneurs yi sukka Père Ndiouga xam nga mm. Lato vraiment di féliciter Goro Sock tamit ndamu démb mi nga li roy mm. muy taalibe Serigne Cheikh Fall Mbawar bu nga xam Baye Fall la te encouragé mamalem di ko ne gëj naa dégg mu yoon depuis 2016 na koy la lafal cat Goro a wax combat bu neex ñaari jambar expérience face de la face à la jeunesse attention à Tafas ak jos waaye kan mooy jos kan Ngom le grand champion. Madan daan Boy Niang deux fois Madan daan deux fois Dan Bac Seras ah Zos champion la daanaan la de. qualité Zos. Mhm. Zos mën na bëri lépp Zos mën na songu Zos mën na xaar Zos paqueté na fi Boy Sey Zos sol na fi Boy Niang dàqu mu Jos gis naa ni bi mu nooju ko mu tëdd. Mhm. kon Jos gis naa Adi Sapp yi mu fàq ko mu surux. Mhm. kon sooy seet Jos mën na ci bi bor mhm. mën na cee bi bor Jos lépp lay bëri sooy seet. kon bi. xeex bi la sa sa lambam. sooy seet nag euh, Tapha Tine na ko ci kaw ba kaw ko ci waaye li may wax chaque jour dóorum daanu kenn du ko wàllu ci lamb ku bañee ñu nga daanu bul bëri ci ku hasard la rek kenn du jógee sama kër ne damay dóor nit mu daanu mais sooy seet Jos mi ngi mu Tapha

waaw Zoss champion la magoo garga la dafa mën a bëri ba pare mën na xeex ba pare ñeme na Zoss yi ngay dégg ñu ko durum daan yëpp mooy ñeme gi parce que du reculer mhm. mais combat bi nag vraiment soo bëri xale mhm. vraiment su doon man maa ko indi ci lamb ji mhm. ni ma bëri boo ñaa lay bëri Ada Fass dama jël lamb ji jox ko ne ko yaa soxla yow yaa bëgg egg ci kaw man egg naa au sommet vraiment yaa bëgg Zoss nag loolu la mën a amee ci combat bi ndam jox Ada euh, euh, combat bi su Ada juuma mu exploité ko parce que lamb sànq juuma doo daanu bëri dafa dem ba page mille saa yu juuma ñu daan la wax dëgg yàlla bëri bi Zoss wax nga ko sànq. waaw mbër la bu nga xam day jëli. day plaqué waaw. day paqueté mooy song bu bëri ñaan bu jeex takk. soo ko songee da lay noyyi. Mm-hmm. day takk ba pare di braqué. kon sooy seet sos mën na mm-hmm. lan moo des ci làmb leneen xam naa mbër moo ko foofu noonu def ko waaye ñu mu song daan na de. mais kooku mooy champion. Mm-hmm. la révélation de Fass. la révélation de Fass Benno di champion di ndaanaan. Maran Jokkel. Maran Tafa Mbër. Maran Kulifay numéro 2. nañ jam foofu champion ay morom dañ la duggandoo ci lamb mais ñu bëri da bàyyi ne leen fi mais loolu mbiru suñu borom la ak bayre kon yàlla na ko yàlla fa cet defal ko tawféex di ko wax nag mu gën a jàpp lamb parce ko Ndakaaru bëgg ko lamb espère individuel la am fulla am fayda gàtt tànk maanu man loolu koy digal parce que Baye Fall la ba rek ku baax nga xam magam la vraiment mu jox ko te xam ne lamb boole lamb su boole waru dinañ fa ci mm-hmm. waaye combat bi xeex moo ubbi ko euh, bëri bi maanaam man ko wax mënuñ tëb rek donc euh, dëgg daje foog ñu xeex xeex moo bëri bi mais a ndaan bëri di bëri ndaanaan bu mel nii Zos mm-hmm. Ada Fass tey yan comportement la war a am bisu le huit sévère sévère serein fulla mm-hmm. fayda bëgg bés bi xam ni xale la dafa war a ndam li indi ko ndam na yàlla moo koy joxe lamb victoire moom niil ak défaite ndam nga bàyyi ko tabaraka wa taala sëriñ boo mënti dem ci àddina si yàlla ñan man maa la wax loolu ku ne wax loolu ne ko Serigne Khadim ma ko wax mm. kuy sëriñ boo mën dem ci àddina si yàlla rek lay ñaan aar nag na entraînement bi gis mm. passé seen naa mm-hmm. mais dafa jeexoon mais même deux mois ma gis aar yokkat téye paa boobu kilifa la mm-hmm. ku baax la mm-hmm. bàyyi fan la te jàmbar la aar su ko dégloo mun na que même deux mois ak ni mu jeexoon nga teg ko coono man man vraiment man dama am mbette ci ah. ba dama doon teg ci aada dama doon teg ci jos parce que mu gis Zoss jot États-Unis mu ne yii Zoss bëgg na combat nga xam gën na dem États-Unis yaayam mu ñëwul ndax combat bi kon combat bi Zoss Zoss moom it bakkanam la si war a mhm. parce que Zoss su ko aada daanee mën na ko génne ji mën na ko génne ji ah. moo tax combat bi na ko jëral xam ni yàgg na bëri événement te ji war koo jaaxal mhm. bëri na ñu dàq bëri aada mhm. bëri ñu ëpp doole aada boo ñaa champion la mën na bëri Saliou Ngom kon champion la mhm. ndaran la wax nga wax bi nga koy gis mhm. ay temps yu ñu génn temps war na mën yëngal Zos mais jamono ji dafa mel ni da nga jëlaat combat bi def ko cinquante cinquante parce que dama ma déggee dafa mel ni ñibbi na te nit bu nekk nag mbër da nga am jët mbër du fu nekk ngay lekk mbër woo jaaree fii soo bul jaar fële mhm. parce que dafa lamb dafa doy war lamb sport bu doy war dañ ci nekk mais dafa doy danga nga am ay noonu yoo xam dañ lay seetaan am ñu la bëgg mm. mais texal bakkan bi indi der indi ful ndam nga bàyyi ko yàlla lu xam nga lu xew na nga xam suñu borom la mais ñoom ñaar dinañ fa gis xeex dañ gis bëri pur mm. et dur mm. man maa la ko wax combat ndeysaan la si ñaari mbër yi enjeu combat bi jamono ji ban camp la gën a mëneewu pourtant sax du ndeysaan si aada de arrêté loolu defet di Bari ah, ah, mais nag loolu nattu la te nattu suñu borom a ah. soo ko muñee mu ni la xéwal déggoo ñu la nattu suñu ko yàlla tegalee mm-hmm. sëñ mu na ko yàgg soo ko muñee suñu borom mujj taw feex lay doon mm-hmm. te aada vraiment jàmbaar la xale la mm-hmm. te gis naa vraiment fu mu nekk nii dara parce que nekk xale am na

teg ay ay série de défaite vraiment soo état boo xam te ne say supporter dinañ kontaan mbër kañ ngay xam mbër dëgg dëgg mbër la mu jóge si def retouram mbër mu wala mu teg la ñaari wala benn wala ñett retouram xool ko su ko nga xool damaa entraîné damaa entraîné ndax sa bopp la ko ñëpp xam ko su dawee dongali jos bi ñu bëri Tidiane Faye daw dongali ma gis ko démb jóg mais dama ne jos soo xoolee xool triceps yi xool biceps yi xool de cuisse nga xam ni champion la ndaanan la te lu nekk mën na ko ci très mbër moom dafa mën ci bii bor mën ci bee bor mbër see mën a song xaar mën nga bëri te mën na day jeexal lamb di champion la mais day day xale boo xam te ni yaakaar la tamit vraiment avantage bu ne avantage am inconvénient am na avantage doogu ñëw tey inconvénient wu Zoss waaw maanaam jafe si wàllu làmb lan la waaw dama ragal nag euh, xam jos demoon na egg au jos noonu lañ fi parce que boobu ñu mu tegle daan ku daan booy ñaaw daan guy gi daan euh, bi guy gi 11 jours la jël Issa Pouye daan ko attention jos après dafa Papa Sow ko ferne mooy bi mu naan Papa Sow waxantuñu parce que parce que Papa naq Papa rek laa mës a gis mu jos gétaar ko daan ko mais jos mosuma gis ku jël tànk parce que dafa mën tànk mhm. nu mu mënee song noonu la mais Euh, faatu moo gën a garaaw suñu borom da ko teg jàmm ñi mais lamb yi fi àdduna la su la tegee ay jafe-jafe soo ko muñee mujj gi xéewal lay doon waaye pour ñu xam ko ci yow mu xam yow na la te jaral na la man maa ngi nii kañ laa gëj a bëri maag koo est-ce matul ans damay leen ba samedi man li wax la dëgër de naan deuxième tour entraînement man sama deuxième tour entraînement tudd mu bëgg am carrière am carrière bu gudd da ngay am fulla am fayda ba pare bëgg sport moom Ada Fass nag champion ndaanaan lii dal ko niñ buñ ko ko tuddee jafe-jafe Zarko daan ko du gàcce Zarko champion la Zarko daan na bàcc siras Zarko daan na guy euh, daan na euh, daan na Baye Mandione daan na mbay guy gi Zarko daan na Mansour Diop numéro 2 kon Zarko champion la te Zarko moo doon ay perte de repère gëwuma ko Zarko def na cinq ans France ñëw daan mbay guy gi daan Baye Mandione teg ci ay mag amu de entraîné moo ci am solo am fulla am fayda doole dañ koy téye te gis naa ko si ñoom ñaara wax dëgg yàlla nu ma leen gisee aada moom moom dama bett ah wax naa la ñaari weer ci kanam bi ma gisee aada ak bii wax dëgg yàlla liggéey na na sant entraîneur boobu kundul jàmbaar la enjeu combat bi defet interdit pour ñoom ñaar jos tamit defet dina bon si moom loolu parce que tafaati mun la dan guy ji daan la nga tëgle quatre def ANC mujj numéro deux mujj la gagné par abandon kon jos par force

gis nga lamb soo si bëggee am euh, jom mhm. kenn bañul ku daanu mais sooy dem jàppal ne am na ñu la bëgg am ñu la bañ nga wane ngor wane fulla wala fayda man de loolu laa koy digal te xam ne moom mhm. nga xam te ne tànk yi kenn du ko laal day si ay jafe mhm. am won ko ginnaaw tey mu ñëwaat jàkkaarloog Zoss bëgg relever défi bëgg wanewaat boppam waaye bëgg waat wanewaat beneen bi nga xamante ni amaana tey ëxlu làmb xamuñu ko woon si moom taxawaay waa Dakar. waa Gibraltar. Mm-hmm. Dakar Fass Benno. Mm-hmm. seen taxawaay si biir combat. Mm-hmm. si Ada Fass lan la war doon. waaw Ada Fass bañuñu ko. parce que ñun bi ñu nekk Fass bu mag bi ñoom Gris Bordeaux ay ñoom Djily Mbaye Moustapha Guèye numéro 2 moom doon na fa ñëw nekk booy xam nañu bu baax de champion foo moom moo tax foog mu mën a bëri Fass ku fa nekk di nga mën a bëri mais sooy seet supporter bañ ñu ko de dañ ko mere woon xam maa ne bi noonu jëfee moo te mbër tamit fay supporter mënoo jënd t-shirt vingt dem stade fay ci shirt t-shirt vraiment suñ la daanee du reer di joy koku mënoo ko fay loko mëna mën moy ndam lan moy ndam li nag yàlla ko joxé mais suñ la gisee toujours nga nekk ci entraînement am full bëgg sport lu mëna am dinañ jiital yalla on a ah, de vraiment am na motivation face Gibraltar ñaar tali so seet Ndakaaru ñu ginnaaw aada face parce que tamit mbirum penc la te su fekkee teg na si yoon usa aada war na mëna dégg sax roi des arènes ci yoon waaw ci man dama mën a bëri hmm. xam naa ko mën ku mën a bëri kay dafa mën a mais ku ko lefay de sol dàq la nga jël triceps dóor ko deuxième pied mais mën nga bëri jokkal buñ ko fàtte dafa doon xeex aada jooy la moom plaque mu jaaxal dafa mbër daane te ko xar jëppan mu bañ mu yokkat ko te dafa mbër champion la. moog bébé bis mi moog bébé bis mi nan la ko daanee. ah na respecté aada. aada xale la waaye du ci ay mag. Mm. soose mi ko yoree ñoo bokkoon écurie Fass mm. soose ki amul ku ko dàq bëri. Mm. amul chance su mais dafa mën a bëri. soose boobu ak entraîneur dungu gundul. su leen mun na am nekk ci lamb. mais nag soo bëri ko am expérience da nga koy respecté jox ko cër ba ni nga koy daanee Zoss tamit il faut mu jox cër aada te xam ne aada màgg ba pare bëgg na ndam dafa jóge si défaite contre Zarko kon soto lio blessé kon défaite interdit muy Zoss muy Ada Fass bis le huit gars yi tëj aada pare nga mu waaw Zoss pare nga mu ni waaw ñu tax gars yi ñu ngi doon xam nga lamb da ngay ànd ak 15 personnes ñu dem nga ànd ak 5 personnes ñu dem nga ànd ak ñaari personnes ñu jékki-jékki nga ànd ak benn personne ñu jékki-jékki ndeysaan mais nag am na mbir yoo xamante ni dañu mën géew dañuy taxaw ne la demal arbitre sifflé ma def li def am ñoo xam dañu bëgg dañu bañ tàggoo bi mais foofu mbër lu muy yëg foofu looy en tant que yow mi ah foofu fekkee nit jom nga man de wax dëgg yàlla pour ma bëri dëgg il faut mbooloo mi bëri barki Cheikhul Khadim parce que yëpp topp sa ginnaaw mbapat mooy def loolu da ngay tàmm ni ñu jege la man bëri naa ñu génne jaas neem soo daanee kii ñu ray la ko deuxième pied dem sama mën a bëri mbooloo man su nit ñi di yuux daf may rof doole bëri naa benn combat si Cité euh, Fadia ko ñu jos mm. maag Sylvain Ndiaye bëri bu lool ma yónni benn boo yeeyaa ma ko demal ci Abou Cubulo mm. ne ko na way atouré su ko wootee ma daan ko bëri na 15 minutes mënu ma ko daan dafa ne atouré ma dóor ko brafale yow mi barki sol way dafa war a dugg mbër tey xar ma ma jàgg ci jógee fay way ndiku ci ñu way fay Moussa Diouf xool na bu ya dan moo doon xabtal ci mbapat mbër mbërul way dugg doo mbër te ñoom ñaar vraiment ay champion lañu ba pare tamit ay roykaay ji ñoo ngi bañ a woote violence bu baaxul ci lamb day day dàq muy Fass muy Parcelles sport su boole warul takkale jos magu aada la rakkam la nañ joxante cër su jeexee ñooy tuddante doom ñooy dëj ñooy dee ci ngénte yi kon nañ ko rafetal te aada daan wax naan jos idolam boobu xale te nañ ko rafetal vraiment moom champion parce que lamb su jeexee day rafet xoolal tey Balla Gaye keroog la dem si saari boo ñaa na respecté Zoss Zoss tamit euh, baax ñu wax ko am na geste yi nga xamante ni ni dañ war di wane maanaam di ko di ko baaxee muy keroog ministre bi lu mu def. Mhm. ministre de la jeunesse. ñëw na si signature bi xamal ni képp kuy mbër te di bëree bisu la huit. Mhm. moom pare na pour jàppale la. façon yooyu tamit boo koy gis lan lan lan nga si yëg. waaw kii Ndour la lu mu tudd Malick Ndour Pape Malick Ndour. waaw moom miinu ma ko sax damay dégg ñoom Papa Sow di ko parce que man nga gis ni sama génn bëriwul man su ma demul si ngàcc bi fii kër ga saal wala géej mhm. moo tax sama génn bëriwul quoi mais ni ma ko déggee ak ñu ngi koy waxee nit ku baax la. te comme ministre de la jeunesse moom war a jàll te maa ngi dégg ay jëfam vraiment loolu mu def rafetlu nañ ko lii li mu def nii gox bu nekk muy ministre muy maire muy député war nga ko defal askan parce que lamb facteur de la mhm. jaay ko du café bi jaay ko du gerte bi jaay ko du crème bi ku nekk da nga gis sa kon nañ rafetal mhm. te xam ne la te xam ne ndam li Sénégal mhm. waa Jos Ada Fass moom wala huit foo sànni maa lu mu dugg da ci am tam parce que xol bi dafa rafet jàmbar tamit nekk écurie bu bees te vraiment sooy seet jàmbar écurie yi bëri nañu roy si ñoom si professionnel mais xol ñu ko wax tubaab dinañ professionnel quoi macha allah waaw vraiment waaw waaw loolu waaw xam nga man dama olof dafa xaw ni ñuy tege si yoon góor soog soo xoolee démb xam ne dafa tegu si yoon ponk la boo xam ne dafa attan boppam mhm. su ko lato njuga dañ lay teg si yoon mhm. mbër nag mënu fay liggéey ngon? 4 heures wala 5 heures koy fekk entraînement ndax bi dem dem maa ngi koy wax ma ne ko yéen amul leen ci dara mbër mi am tàcc bi mbër mi am xaalis bi mbër mi am bi lu ci am rek mooy sa mbër mi am na ndam te loolu sag la vraiment nañ rafetal làmb te xam la vraiment Sénégal fi la lan ngay ak lan ngay wax ñi nga ñooy amateuru lamba. Mhm. bisu le huit. waaw yaakaar naa ne moom taa stade moom dana taar. waaw allah. stade moom foo sànni mënut takk parce que mm. jàmbar. waaw waaw ndeysaan te bu bee passé def comme defoon nañ ko te tamit suñu yëf la vraiment kuli ak daa. Mhm. ñoom it ndeysaan xam man tamit dama am chaîne. Mhm. muy dëgg sa bopp TV. xam nga affaire yaatu. waaw kuli moom ko defaral euh, saaxo bu nekk France magam la. ak grand daa. ñoom it sa géej nañ def sa émission mais ñoom it foog naa dugal ci combat bi mhm. parce euh, nit lañ ba pare nit ñu ci baax di mhm. mhm. maa ngi nit euh, soo toog muy Samba Ndiaye vraiment ak Youssou nga xamante mooy borom xas

teel a foo sànni bat day